dal leen ak jàmm ci seen chaîne d'information li ci réew mi chaîne bi leen di jox mbooleem information à réel gaaw leen abonné ngir benn information bañ leen a rëccati xibaar yi dañuy wax ak lu yéeme amaat naka gannaaw ab l'accident bu faatoon fukki doomi aadama ak ñeent beneen l'accident amaat ci diwaanu ndakaaru fa toll ak rond-point e benn bakkan dal sa rot am ñu si bëri ñoo xamante ni si am nañu ab gaañu gaañu loolee mu ngi tukkee ci bus Tata ligne 32 bi daw naka bu dal di fay xalangu sa ba nag fa sorewul dara ak pont bu xeexoon ba nag diis na lool ndax am na si benn bakkan boo xamante ni si rot na ci am am ju bëri ñu xamante ni si am nañ ci ay gaañu gaañu loolee fekk ci lim bi yokk nag ci l'accident bi amoon foofee ca muy wéy nag di samp ab laaj ci la ñu nekk ak l'accident yi nga xamante ni si bëri nañ lool donte nag jëloon nañ ci ay mesures ay dogal ngir fexe ba faagaagal loolee waaye mu mel ni mbir mi tàggat timbe na l'accident boobee nag wéy di gën a yokk buum bi nag foofee nga xamante ni moo ca diwaanu Ndakaaru sànq nag la dal dee am mu di nag loo xamante ni tam xibaar la bu wàcc léegi ci suñu ay euh, chaîne mbokk yi wéy leen di abonné ci seen chaîne d'information bii di ci réew mi dara ak information dootu leen rëcc